musiba yi gën a rëy ci sunu réew laa ilaha illa kenn ñemewu koo wax ndax kat ay kilifa bu ñu toogee ci caaxaan ñu bari dañuy foog ni dëggal lan mooy loolu waa mbokk yi du ngeen ma solo kañ la dagan jigéen di way kañ kañ la dagan ay jigéen jigéen léegi jigéen ñi ñooy sikkaat léegi jigéen ñi ñooy way jigéen ñi ñooy tagg yàlla di yëkkati seeni baat ndax lii yàllaa ko digle allahu amarakum bi hada moo ndax yàllaa leen sant na jigéen ñi sikar ndax yàllaa wax na jigéen ñi way ndax yàllaa wax na jigéen ñi takkaay di way di sikar di yuuxu di jàng ay ndax yàllaa ko santaane déedéet maa anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay du diine ku ko def kul haatu burhanakum képp ku indi ay jigéen ñuy sikkar di way nee nañ la indil tegtal qul haatu burhanakum su ngeen ci amee lay ci diiney muhammad su ngeen ci amee lay ci diiney yàlla ñëw leen indi leen alquran mi ngi nii ñu ngi jàkkaarloo moom hadis yaa ngi nii ngeen wax ñu fan la yonent bi jàngalee jigéen mu way fan la islam jàngalee jigéen mu way fan la alquran jigalee jigéen mu way alaysati salaatu a'zamu wa akram ndax julli gën ta màgg lu ñuy def lépp lu ñuy def lu ci gën a màgg du julli li ñuy def lu ci gën a rëy ci jaamu yàlla du julli waaw ndax julli jigéen dana ca yëkkati baatam laaj naa leen ko ku ko xam tontu ma ndax jigéen dina yëkkati baatam ci julli wuyu leen ku am tonto ku ko am maa ngi lay xaar ndax jigéen am na droit yëkkati baatam ca kaw ci julli ci salaatu jahriya ndax jigéen sa na te pourtant jullee gën a màgg da ndax awalu maa yuxaasab bihi l moom la ñu njëkk a laaj jaam bi te yàllaa ko santaane yàlla nee na la yow jigéen amoo droit nga ci kaw ci biir julli am nga droit nag bu dee yow dong yaay julli ci sa biir néeg yow jigéen nga jàng lu tolloog sa dégg-dégg am nga ci droit mais amoo droit yëkkati sa baat yow jigéen waaw li gën a baax yàlla araamal ci yëkkati sa baat nga jël leneen yëkkati ci sa baat foog ñi diine la du diine fola fola du diine bokkul ci diine yàlla bokkul ci diine Muhammad waaw yow jigéen boo mokkaloon alquran ñun ñëpp ñuy julli imaam na fii di jàng gàgg góor ñi kenn mënu koo gàggante ndax islaam may na la yow jigéen nga wax baat bi nga koy gàggantee tontu bi mooy ndax may na ko ko déedéet nuñ la sant nga tàpp sa pooj ñu xam ni imaam gàkk na mais mayuñ la yow jigéen sax nga yëkkati sa kàddu li gën a rëy jaamu yàlla amul tey foo toll Sénégal télé yi rajo yi këru diine yi ku nekk am na ay waykatam yu jigéen ñu yuuxu rek di way foog ni ñoom ñoo tane waykatu àdduna yi bal ñoom ak ñoom benn lañ ñoom ñiy way ci turu diine ñoom ñooy xeex diine ñiy way ci àdduna ñooñu lu bon la ñu def mais ñiy way ci turu diine lu bona bona bon la ñuy def duñ ci am tiyaaba duñ ci am santaane yàlla bal bàkkaar lañ ci amee majuraat gayra majuraat bàkkaar rek ngeen ci amee du ngeen ci am tiyaaba kon yéen jigéen ñi sikkar ragal leen yàlla yéen jigéen ñi way ci daayira yi ragal leen yàlla yàlla santaane wu ko yonent bi santaane wu ko bokkul ci diiney muhammad ku koy def def ko ci lu la neexee mais bu ko tuddee diine bokkul ci diine yow jaamu yàlla bi boo dee ut tiyaaba te ngay jigéen nga bëgg a dem ajjana nga bëgg li yàlla santaane nga def ko ah baal way baal sikar baal yuuxu way bu nekk yow jigéen loolu waru la looy def defee ko ndànk waaw kilifa diine yi nekk ci kër yi te nekk ay boroom xam-xam te seeni taalibe di ko def te nekk ay jigéen di leen way ñoom di way seen wayi kilifa waaw kilifa diine yi fi nekk ñoom ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سيرين سي دوغين راغال يالا لي خليف جينيرو دوغين راغال يالا خنا جوتوت نين راغال يالا تي سين طالب يو جيغيني واي ييني واي نين تيرالين كو ندخ دو جامو يالا دو دين دو الاسلام خنا جوتوت نين راغال يالا تيلكو خنا جوتوت نين راغال يالا تيلكو موكي راغال يالا جوتنا نين نيب تيام خليف جنرال وي نانيو راغال يالا تي لول نانيو راغال يالا تي لي خيو مي سينغال لي في ام امول فن تي تورو دين لا ني دين ريك دي ديف لو خامتاني والله كفر لي ياغي تي جامو يالا ياغي كو ام تكتل تي القران با حديث نا ماغي ني دي لا مكو سو ما واخه لو خامني سنه ان شاء الله دانا تخوات في وخات ما danaa taxawaat fii ma taxawoon waxaat ne maa juumoon bépp sëriñ bu am aaya ci jigéen am na droit sikkar way ñëwal ku am xadis ci jigéen am na droit sikkar way ñëwal ku am xam-xam ci jigéen am na droit dem daayira di sikkar di yuuxu ay góor di ko wër muy way ñu foog ni jaamu yàlla la indil ma ko fii maa ngi lay déglu maa ngi lay xaar soo ko indee insha allah danaa yëkkati sama loxo jàngaat ci yow watawaasaw bil xaq diine ji diine yi dénkaane dëgg la bu ñu naxante naxante baaxut سيرين سي نوبي بو ني نوبي مصيبه لا بوروم خام خامي نوبي بو نوبي مصيبه لا بوروم بي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يلا نيم ربنا نيود تي بنو اسرائيل يلا كوخ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل يلا نيم ربنا نيود تي بنو اسرائيل نيوكا يلا نيوني لوتاخ نغ رب لين بان سبب موتاخ نغ رب لين من على لسان داوود وعيسى ابن مريم yonent yàlla daawuda da doon wax déet du nii bu leen defee nii isaa da doon wax déet du nii bu leen defee nii nit ñi naan dimbalenu yow kañ ngi fi jóge xale bu ndaw nga kilifa yee la mag xale bu ndaw mënta xam lu mag ñi xamul isaa di wax naan déet ñu taxaw e, daawuda di wax naan déet ñu taxaw borom bi nee na ñu dem bay weddi nag zalika bi ma asaw wa kaanoo yaataduun sabab boobu mooy li ñu weddi yàlla te jéggi dayo xam ngeen luy jéggi dayo mooy lu bokkul ci diine ku ko def wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa yow jigéen ji saa boo jëlee benn téere di ko sikar ñu lay déglu nga def ci benn clip mbaa nga toog ci baaf di sikar góor ñiy daanu ñu naan lii diine la du diine amoo ci tuyaaba bakkaaru kese nga ci jëlee bu dee laylatul qadr rek lépp ci yam munoo ci am tuyaaba ndax santuñ la ko jàngaluñ la ko yéen ñi ne da ngeen a baas yéen ngi wër laylatul qadr di sikkar yàlla santaane wu ko yonent bi santaane wu ko bal julli la ci santaane boo ko mun toogal sikkar jullil jaamul yàlla loolu bokkul ci diina yàlla ji zalika bima asaw wa kaanu yaataduun jéggi dayo mooy jigéeni jullit di yëkkati baatam di sikkar di way muhammad sallallahu sallam boo wayee muhammad doo ci am tuyaaba yow jigéen boo sikkaree ci kaw yuuxu ñu tëgg musique nga waaw ngaa woy Muhammad da ngay am bàkkaar yow jigéen boo toogee ci daayira di tudd turu Muhammad di ko sikkar di tudd yàlla da ngay am bàkkaar doo am tuyaaba dalika bima asaw wa kaanu yaataduun borom bi nee na kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuh mooy li ñu dal waa Sénégal lu bon li ñu def boo nee dafa ñu taxaw tey ñépp xam nañ ñu dafa haram mais këru diine dem nañ ba dañ ciy royante am na ñu ko def ñu toog ay at benn kër par benn léegi kër yëpp am waykatu jigéen kër yëpp Sénégal ba mu daj këru diine yëpp ñoo kan moo fi génne këru diine bu amul waykat bu jigéen laaj naa la ko amul lan moo tax pourtant ña ko njëkk a def bañ koy def ñeneen ñi xamoon nañu du diine ñu bañ mais caaxaan di yëkkati ku ñuy seetaan ndax kaanoo laa yatanaahaw na am munkarin faaluhu musiba di yëkkati ku ñuy seetaan ndax kaanoo laa na am munkarin faaluhu mu nekk musiba nekk lu bon di tardel réew nekk merum yàlla nekk sànj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaanoo laa yatanaahaw na munkarin faaluhu borom bi nee na la bisa maa kaanoo yafaaluun yéen a bon lu ngeen di def jigéen di yëkkati baatam di way ci kaw aya yi bi muy ñëw dafa topp ci kaw aya qul ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum ghayra alhaq la tattabiu ahwaa qawmin qad dallu bu len topp banexu bakkan ñu réer gis nga kilifa bi mën naa réer lan moo koy réeral mën na jàng alxuraan mën naa am xam-xam mais mën naa réer parce que taalibe kuy wër bu fekkee lu leen neex rek la bëgg dinañ ko dugal ci lu bopp loolu moom mooy ittiba ahwa' moo tax yàlla ni yonent bul topp bànneexu bakkanu kenn kuy mer kuy kontaan bul topp bànneexu bakkanam diine kenn du ci topp nit lu ko neex da ngay topp li neex yàlla kon yow jigéen tuubal bépp jigéen bi sikkar ci daay rey demal jullil tuubal dellul ci yàlla bépp jigéen buy way Muhammad di way ay sëriñ di yëkkat sa ci kaw demal tuubal buntu yàlla tëjut laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia su way mënta ñàkk bàyyee ko góor ñi mais yow jigéen amoo droit nga way amoo droit nga sikar amoo droit nga yuuxu ba ay góor di ci daanu soo ko defee seytaane nga buy def yëfu seytaane loolu dañ koy tere. hal laka sirrun inda allah بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى